naafila guddig fukkeel ga ak ñeent ku ca julli juróom ñetti rakkaa rakkaa bu ci ne gannaaw fatiha isaa jaa juróom ñaari yoon nee na képp ku ko def mel na ni ku saraxe junni dinaar goreel junni jaam lele junni ñu xiif te des na nangu ak julleem aku koram te dees na ko musal ci ayu àdduna ak alaxira te bu bis pencee dana bokk ci ña nga xam ni duñu jàq du duñu tiit te dees na ko ràmmuloo ci ñi waroon a dem sawara lu ko soob mu yóbbu leen àjjana te deesu leen ay sàpp